daayira bii di Safinatoul Amaan nekk fi ci Touba ci njiitu Serigne Modou Lo Ngabou di kenn ci sëti Serigne Touba Cheikhul Khadim ci côté waajuram wu jigéen ñoom kat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim waneti nañ seen manin bagage yi ngeen di gis nii di ay bagage yoo xam ne dañ ko tere fii ci Touba te ñu teg ko lu ci mel ni pon cigarette sangara ay bali football ay yére yu ngott ay bongo ay patin ba ci ay cassette yoo xam ni dañ caa def ay film yu ñaaw ak bépp bagage boo xam ne nii rek day xotti war may Tuubaa ji ñoom kat dajal nañ ko fii tey jii ci gaar bu mag ngir nar koo lakk. liggéey bu am solo bi nga xam ne nii waa Safinatu Amaan ñu ngi koy amal ginnaaw bi ñu amee ndigal li ci Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar war ci ànd ak waa police ak waa gendarmerie. buñ sukkandikoo ci kàddu yi am solo yi nga xam ne nii jëwriñu liggéey bi wax nañ ko ñii di waa gendarmerie rafetlu nañ seen liggéey lool. ndax seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di waa Safinatu Amaan te di yenn yéene di liggéey Serigne Touba Cheikhul Khadim saa suñ leen wooyee ci lépp lu mu mën a doon dañuy teel a ñëw te dañuy ñëw ca na mu mate taxawul liggéey bi ba lépp lu ci yoon wax ñu def ko waaye seen diggante ak police nag am na ay ñagas-ñagas ak ay diggante yoo xamante ni jëwriñ yi wax nañ ko ndax bu sukkandikoo ci ñoom ne waa police léeg-léeg ñu woo leen ci benn mbir boo xam ne nii donte ñoo ko war a saytu ñoom police war cee ànd ak waa Safinatu Amaan police dañuy dibal seen jéego yéex a ñëw ba nga xam ne nii mbir ma daanaka lay na sax sëriñ bi daa yeble woon ci yow xamal ne ne gendarmerie ak police nañu ànd ak Safinataan liggéeyal Sëñ Tuubaa ci dëkk bii na xam ne nun dey ndigal loole fas na yéene wéyal nañu ko ba faaw lépp loo xam ne noonu koy bëgg a def daan woo gendarmerie bu dee si son gendarmerie jublu ci it ànd kook ñoom bala ci sëñ bi bëgg mu am ko bu dee ci son police daan woo police lañ cay jubloot mooy ànd kook moom bala ci sëñ bi bëgg mu am ko loolu nag suñ digg ak police di mu wax de gendarmerie di mu am lu ci jafe-jafe waaye nag suñ digg ak police moom mot naa lijjanti mot naa leeral ba xam lan mooy gàllankoor bi ginnaaw yow la ñuy liggéeyal te it am na gàllankoor ndax xam nga jàpp ab sàcc woo police police war a teew dikk ba si ñu ne la sàcc baa ngi nii ñett lañu kenn ki wenn na ba dikk fii ñu bëgg koo dóor mbooloo ma bari ma ma fexe ba mu doog dugg ci kër baaji gee ña ca dese nga ca biir jotuma leen a gis ma woo police bañ ñëw bañ ñëwee yàlla dogal na ah, ñëw nañu ba egsi may leen ñi ngi ci biir kenn ke nag damaa bañoon mbooloo mi rek ndax booba mbooloo mi daa ful ñu commandant ba ne leen ñëw leen bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen nga xam ne dama faa toog ba mu sëñ mu Moussa laa woo ba ma ko woo ba mu ñëw yàlla dogal na mu woo waa beer waa beer ba ñëwee ba ndee ginnaaw gi jàpp na nu benn sàcc fële ca tu jéem jeewal bañ leen woo dañ leen nañ ko indi ndax commandant moo ne duñ ñëw léegi nag loolu doon doon mooy jafe-jafe yi waaye du tee noonu ba fii toll nii lu nu gis ca mu nekk son police dañ leen di woo danoo mujj ma ne Modou Diop mi wol gendarmerie gendarmerie ko jël si ndax boo ko fa jëlee dañ koy rey ah, kera bi ñuy suba la màggal mbay jaaxal jàpp naa aw nag woo xam ne bii ñett ñett ñaara ko jiitalan kenn ka daa daw ba mu woo ca guddi ma ne ko wol police ndax foofu son police la ba mu woo ba mu woo police dañ ko duñ ñëw andi ko ma ne ko fexeel su fexeel ñu la sàmbale na bët set ca kenn kaa nga fa mu ñëw ñuy sàmb na bët set ñeenti téeméer laa fay sareet ñu ànd ak boole sàcc ba ak na wa police loolu nag duñ boobu risque moom duñ ko jël moom sëñ bi ndax loolu man na sax ba nga koy yóbbu ay nit dab la gaañ ko ñu ne safin la maan la bu bëggoon loolu nag ginnaaw da ngeen ñuy liggéeyloo ngeen di lijjën lijjantil nu ko ba suñ digg ak police nu mën a ànd liggéey ndax su ñu liggéey sëñ bi rek la ñuy def ba fii mu nekk nii itam ndigal loolu ñu am ci ñu ànd ak ñoom liggéey boobu tax na fii ne tey son police bu ñu fi gisan fii mu ne leen nit duñu woo gendarme police rek la ñuy wax dëgg yàlla gendarmerie nag fii mu nekk nii wax dëgg yàlla fépp foo xam ne ànd soxla nañ fa woo nañ leen fa saasa rek ñu daal di ñëw même boo leen woo sa crédit jeex sax ñoo lay woowaat boo def ana foo ne foo nekk ñu daal daw doonte ñaari bu bees bi sax ñaari oto yi daal di ñëw ci dem mbooloo la ñuy saf daal lay fay fekk la la leen tax a jóg ñu daal koy saafara loolu daal sëriñ bi li nga xam ne ginnaaw ñëw nga daan la ko jàmbat yéen bi ko war a lijjanti te mun noonu naka liggéey ngeen lijjanti ko mo ban mën a ànd ak sànn te waa Safinatou Aman seen gis-gis seen bëgg-bëgg ak seen yéene benn rek la muy liggéey Serigne Touba Cheikhul Khadim loolu nag biñ ko biralee ki nga xam ne ni moo di Serigne Modou Lo Ngabou mi nga xam ne nii mooy jëwriñu liggéey bi ne na kat kilifa yi ñu ngi ciy dox ay saafara ba lépp loo xamante ni Safinatu Amaan soxlaati na ko ci police mu nekk loo xamante ni lu yomb la ndax Safinatu Amaan ci liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim la ñuy liggéey police bi itam ci ndigal Serigne Touba Cheikhul Khadim moo leen fi indi ndax jamonoy Serigne Saliou la Serigne Saliou indi fi ab police nuyit nag ñi ngi sant bu baax ni ko sañ Bay waxee waa gendarmerie ndax wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ci liggéey bi ndax am nañ ay matuwaay te xam nañ ne liñ leen jàngal man nañ ko liñ leen fi indee it xam nañ ko te waxtu wu leen waa safinatul amaan soxlaa bu boobaa dañuy dal di jóg fekk leen fañ nekk xëy na kon li ñu xaw a gàllankoor ak su néew mooy problème mu son yi te sax kilifa yi ñi ngi ci doon def ay yëngu ak i lijjanti xëy na mbir mee mënut a gaaw waaye problème mu son yi gàllankoor na lu bari mais gendarmerie day fépp fuy sonam buñ ko woom balaa mat trente minutes dana wuy ji ndaw yi ko loolu nag ñun ñu ngi leen ciy gërëm di ko seedeel seen i kilifa tey du yam ci wax ji képp fu ñu fi war a bind danañ bind mu dem fa fi suñ tànk joti ak suñu kàddu danañ ko fa eggale bañ xam ne ñoom liñ leen fi indee woon it ca dëgg-dëgg ñi ngi koy def a ah, ñeneen ñi ñu ko seqalit muy waa police ah ñoom it ñi ngi yaakaar ne danañ góor góorgóorlu ci seen kem kattan ci liñ ci man loolu it ñi ngi koy yaakaar ci ñoom waaye du tee nii ko sëñ Bay waxee nun danañ respecté loolu fu fi soonu police nekk waa Safinatul Amaan danañ woo police fu fi gendarmerie nekk danañ leen woo nu xam ne nag dëgg la ay ndongoy daara lañ waaye li ñu li ñu ump ci àdduna bi it bëriwul ndax saa yu ñu leen woo ku ñu ci woo danañ bind bis bañ la woo ak weer wa ak dat ba ak heure ba ak lépp ngir ëllëg ak si ñu mën a benn génne benn kayit wax ne fii intervention sàngam lañ fi soxla woon nii la kaa bi demee woon waaye gisuñu kenn ku leen wallu nun nag waar wi ñu ñu dénk ñoo ngi ci fas nañ yéene suñ giirub dund ci loolu la nekk ak képp kuñ ko àndal ñuy ñaan liggéey boo xam ne nii nag képp ko xam ne nii yaa ngi yeewoo Touba war nga bàyyi xel bu baax a baax liggéey bu am solo bi nga xam ne nii waa Safinatoul Amaan ñu ngi koy def donte saa su nekk ñu ngi ciy am ay jafe-jafe moo xam seen diggante ak ñenn ñi moo xam seen diggante ak way ñaafte euh, ñi nga xam ne ñooy def ñawteef moo xam seen diggante ak ñi nga xam ne nii dañoo sax ci li nga xam ne nii sëriñ bi bëgg ko ci dëkkam bi nekk na liggéey boo xam ne ni ginnaaw bagage yi bi ñu ko dajalee ba sëriñ Modou mi nga xam ne moo di jëwriñ ji wax ay kàddu yu am solo sotti nañ ci essence taal ko ci teewaayu waa sapeur pompier yi nga xam ne nii ñoom loolu seen liggéey la kon liggéey la boo xamante ni liggéey bu rafet la di ñaan bépp murit tàbbi ci jàppale leen ci noo leen mën a jàppalee ci li nga xamante ni moo di delloo war ma Touba di ñaan daje ci ngërëma Serigne Touba Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu